Salut les amis de Sport TV, merci encore Gaël de la confiance renouvelée. Hein. Merci de vous aider de like, merci de vous aider de abonner. Merci également de baisser les commentaires, un plaisir renouvelé Gaël. Chaque fois de partager des informations. Donc, Sénégalais, fait le montiné, 14 régions du Sénégal. Adno Wangel Cup, ni len di jajeufal, ñi nek également ci l'hôpital hôpital ak ci kër yi febar. Yalla suñu borom fëgg seen bop ngeen war ak jam, nek ci kasso yi y a aussi erreur judiciaire ak jindi lañu deful mo leen fa yobbu suñu borom genn leen fa délawaat leen seen njaboot. Ni dëddu aduna suñu borom xalé leen des fi daw ci gaayte yéxé ñu. On avance ensemble dans la magie de

mais laata boobu nag gars yi dañuy waxtaane li nga xam nag moo jëm ci yéenikaay yi ko nag ci yéenikaay bi nga xam Sa Thiès ndax moom Sa nag na bëgg na ne bëre ak Bombardier mais euh, bi nag a moo am mu prouvé ci kanam Real Madrid Real Ligue des champions bi ñu génnoon ñoom ñoo war a dem fekk si nag ñi nga xam ne mooy donc City est-ce que fekk si leen dóor leen lay doon wala nag ñoom City ñooy dóor ñi nga xam mooy Real Madrid en tout cas tey si gudd nañ ci xam dara yéen kaay bi di record maa ngi dugal euh, lu maa ngi liggéey bokk pour gën a gaaw a dellu si mais aussi dugal lu bëri laa bëgg def sama objectif li nga xam nag mooy wàllum NBA ki ngeen gis nii également nag di Victor Wemban euh, Wembem est-ce que jéggalu ma leen nag Wembanyama donc moom nag nekk joueur bu France ah nekk foo xam noo donc ci NBA ay draft bi daal ñu ne Spurs daal moo ko fas yéene daal di jël ki nga xam nag également gars yi mooy Francis Ngannou ki nga xam mooy John Jones ah moom moo ko daal di euh, mel ni ku koy toŋal ne yow te yaa gën a ci li xam mooy arène bi te nangoo ñëw si ñun da ngay reeba tas xam la wax tam nangu woon si beneen côté bi kii ne ko yow boo bëggee gëmee gëmee sa bopp jéegil tali bi loolu la ko Francis Ngannou daal di tontu ki nga xam nag également nag moom ngeen gis nii. li nga xam mooy Victor Osimhen nekk ak ki nga xam ne nag également ah mooy Mario Balotelli Balotelli xam ngeen moom daa mën a def si yenn affaire yoo xam mooy loolu daal jël chaise bu mag toog ci jox ki nga xam mooy donc euh, Osimhen chaise bu ndaw bi ki nga xam ne également mooy Toni Kroos àdduna ci ki nga xam mooy Lionel Messi. moom nag dañ ko laaj ne ko boo tànn joueurs yi dàq ci àdduna bi lan ngay wax mu ne écoutez d' dama ci wax la nekk beneen domaine la nekk beneen niveau la nekk mais ñeen yi nga xam mën naa ki nga xam ne mooy donc kii moom ci Ligue des l' instant ki du côté de Arsenal loolu la média yi wax fa la jëm nag ñu ngi wax du côté du Bayer Leverkusen daal la bëgg euh, dem eggale fa carrière am du côté également de Liverpool ñom ñu ngi insister ba pour d'aller recruter ki nga xamné nak moy le milieu de terrain de Brighton l'Argentin McAllister bi nga xamné nak fi ni ne yi Brighton nu new new xarna ci 70 millions pour d'aller recruter Argentin bi nak ñi di Liverpool présenté nañ seen projet ak programme bi ak aussi li ñi proposer ki di McAllister légui nak mom mo ci des euh, ak ki Brighton ak Liverpool ñoo ci d'aller des Mayo, yu euh, donc Bayern Munich mi ngi nii yu déwén incha allah rabi gars yi ngeen gisoo ko seen bopp moo nekk nii ki nga xam ne nag mooy donc kii di euh, Jamal Musiala daal di koy sol jëm ci rek championnat bi nga xam ne nag moom lañ nar a dooraat di woon incha allah rabi kii aussi gars yi moom mooy agent bu moom mooy donc kii di euh, donc l' ancien entraîneur du Bayern de Munich muy ki nga xam mooy Nagelsmann moom nag nee na. Euh, Nagelsmann ni ñu ko daal di dàqee nekk na loo xam ne garaaw mais aussi nee moom moo bañ a dem Chelsea parce que bu demoon Chelsea mauvais choix lay doon moom. pendant ce temps également du côté du FC Barcelone qui nga xam ne déco moom mooy Deco Deco nag moom fi mu ne nii gars ñu confirmer ne moom mooy nouveau directeur sportif bu Barça et que ki nga xam ne nag gars yi moom mooy Laporta gëm remplir rôle bu ni mel jëm Angleterre ki nga xam ne donc Aston Villa moo bëgg de indi di Matteo Gendouzi waaye du moom euh, kese parce que aussi beneen équipe boo xam ne euh, mi ngi fay waaj a euh, dem dinañ ci wax nag après muy également ki nga xam mooy Tottenham sax Tottenham la bëgg a moo ko ñoo ko bëgg tamit jënd Inter de Milan nag ñoom seen prodige bi nga xam ne nag moo fa nekk di Lautaro Martinez ki nga xam ne mooy Javier Zanetti di vice président nag nee na moom fas yéene wuñ ko jaay dañ koy téye. nee na joueur boo xam ne cadre la seen équipe dafa am importance dañ koy téye moo tax fas yéene ko jaay benn yoon loolu moom xalaatuñ ko bu ko kenn sax jéem a euh, jiixi jaaxa kii nag di Abdou Diallo dafa def loo xam ne gars yi du am solo mais tamit dañu bëggul jël suñu temps jox leen ko parce que mi waxul benn cadre rek li mu wax dafa bëri jëm si li nga xam aussi mooy xew ci Sénégal loolu nag nekk loo xam ne jàngat la boo xam ne wane na ne moom vrai patriote la vrai patriote la parce que bu ñuy boobu sa dëkk ñeen ñi également ñu leen di xoxatal wala nga gis ne li ñu fay def du yoon am nga sañ-sañu génn bu fekkee ne yow sa dëkk ñor na la. moom nag euh, Abdou Diallo euh, nee na euh, gaa yi jamono jii nee na moom mënut a ñàkk bañ a wax même bu fekkee ne deful politique. parce que métti na ngay wax waaye nee na dafa am lu bëri loo xam ne askanu Sénégal jox nañ ko ko teewal nañ ko jàppale nañ leen bi nga xam ne dañuy dem ci compétition nekk seen ginnaaw di leen jox doole nee kon tey jii nii moom lim ci mën rek mooy mën na ci war na ci mën a àddu àddu bi nag. moom Abdou Diallo nee na nag jéemut a def politique ni ma la ko waxee neen tamit ñëwul fii naan gars yi ku nekk na nga def lii na nga def lii waaye tamit moom ci boppam jàpp na ne jamono ji mi ngi massawu dèjà ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan nekk du côté de fi nekk ci gox yi nekk Sénégal yëpp ci Ndakaaru Ndiaye dem également ca Ngor moom it nee na aussi ñi nga xam ne ñoo am seen i gaañu gaañu mi ngi leen di massawu nee na nag aussi askanu Sénégal ñu bëri ñu ngi leen ñu ngi ko doon interpellé naan ko wax leen ci li nga xam ne nag moo xew ci dëkk bi parce que boo leen waxul yéen am ngeen ci wàll itu moom nag nee na jamono ji lim si mën a wax rek mooy ko ne mënut a toog gis lu ni mel di xew ci dëkkam fi nga xam ne tey moom moo moom moo ko teral muy daal di banaliser yenn yi wala gis tamit yu ñaaw yi nga xam ne njombe yeeg ñaawteef yi nga xam ne ñu ngi koy def di ko teg si ay rakkam i ay magam ak i rak doomam ak ak i sëram ñoom ñëpp la daal di tudd ñëw nag tamit ne li nga xam ne mooy surat 5 verset 32 la daal di indi wax ci li nga xam nag mooy jëm ci li nga xam moo xewal ci bani Israël ak aussi taxawaay bi nga xam ne tey nit ku nekk boo boomee sa askan wala boog boo boomee nit wala nga xooxatal nit lan moo la ciy fekk moom nag nee na tey képp koo xam ne war ngaa mën a ñëw wax ci lu ni mel muy nga kilifa wala ngay dara wala nga nekk autorité internationale wala tout dalay ñaan nga daal ci ñëw àddu ci jël intérêt teg ne jël intérêt Sénégal jël askan Sénégal daal koy jiital moom daal loolu la daal di gis te it nag mu tëjee ko ne Sénégal lu bëri ngeen ko apporté loo xam ne moom mënut a toog bañ cee wax dara gars yi noog c'était les informations yéen ban gis gi ngeen ci am woy leen di laag woy leen di abonné mais respect à Abdou Diallo parce que tey jàngal na ñu lan mooy Sénégal jaa jëf